مولاي صل وسلم دائما ابدا ak Free Money doo fay dara Free Money moo leen di may seen émission te di leen ñaanal gàmmu jàmm ak salaam مولاي صل وسلم دائما ابدا asalaamaaleykum Senelec delsi na di fàttali clientèle ak ay abonné bu ñu tolloo fii maanaam ci nawet moo xam sax lu dul nawet accident yi nga xam ne mën nañ ko jëlee ci courant ci biir kër yi wala ci biti mooy tëndiku leen di laal fii lu courant yi nga xamante ni nii dafay taxawaalu ci suuf bu leen jëlee mu jumtukaay yu jéggi dayoo ci barab di ko yóbbu ci beneen barab te yëgalu leen ko waa Senelec mooy tëndiku leen di liggéey wala ngeen di jëfandikoo jumtukaayu courant yi te seen xam-xam màccul jëm ci wàllu courant bu leen mës jege poto courant ak bu ci mën ci doon moo xam bu weñ ba la wala bu bant moytandiku leen di def dëkkuwaay wala barabu liggéeyukaay wala jaayukaay ci poto courant yu mag yi ndax itam mën na leen indil musiba bu jéggi tay bu ñu nemmee ko benn jafe-jafe ci sunu jumtukaayu courant sunu biir kër suñu biir gox ñu gaaw woote ci suñu service client au 33 867 66 66 wala ci suñu numéro vert au 800 00 00 00 lii daal bu ñu ko defee aar suñu bopp aar suñu askan Senelec courant bi tax lépp jàppale. Free mooy ànd ak yéen ci gàmmu gi ngir ngeen mën di yónnee jot xaalis ak fay seen facture te doo leen fay dara. t'appel gaaw dièse 150 dièse wala nga téléchargé sa application My Free amul benn frais Free Money ngi leen di ñaanal gàmmu jàmm. mbokk mi ngi noonu waxtaan baa ngoog dana koy àggale ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñaanal mbooleem xalif généraux yi ne ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu yàgg fi lool te wér maa ngi ñaan bisu tey bii na kenn ku ne jox sa moroom loxo ne ko félicitation. <laughs> ay lañ bisaan doy félicitation waay ay mbokk yi félicitation ñaanal Seydi Ababacar Mouhamadul Mansour xalif général di Tidiane si nu ngi lay nuyu nu ngi lay ndokkeel ci bis bii tey eh, nii an lakk ngi lay ndokkeel si sëriñ Maodo si sëriñ Abdoul Aziz nu ngi lay ndokkeel moom la sëriñ Aline Sakho waxoon ni damaa laaj tabe ndax gor nga tab na ma man jaam laa de ma ne ko jaam de day am sang mu ne ma man sëñ Maodo mooy sama sang sëñ Aliou Sakho koy waxee nee na ma ni ko waaw waaw moom ndax dalaa jënd mu ni déedéet dafa maa ci kum la doon ci Alaaji Abdu bàyyam waaw Alaaji Abdu ndax jënd mu ni damaa donno kum la donnoo mu ni ci Seydil Hadji Malick bi mooy sëriñ Maodo daf ni sa altun nada hël anta xorroon fa xaala laa walakin na nii abdun li mawlaaya maliki fa qultu ishtaraaki xaala bal kuntu xablahu li walidihi an jaddihi alhaaji malik taajul udabaai wa adibil ulamaai sëriñ babacar abdul aziz nu ngi koy nuyu sëriñ mansour abdul aziz sëriñ mansour si jamil sëriñ cheikh tidiane si mouhamadul mansour sëriñ mam ousmane si mouhamadul habib sëriñ sidi ahmed si mouhamadul habib sëriñ moulay si mouhamadul habib ñoom ñëpp nu ngi leen di ndokkeel sëriñ moustapha si bu seyid si ahmed tidiane si al maktoum nu ngi koy ndokkeel di nuyu sëriñ mansour bu sëriñ cheikh nu ngi njabootu seydi alhaaji malik yëpp bàyyi wunu kenn kenn sëriñ Abdul Aziz si bu sëriñ Sid Ahmed si mu ngi koy ndokkeel ah mbokk yi su tey bii nag xam nga ni ca la jamono puuk réew tatabaha bikal usuuf ci waxtu wi tem ci waxtu wi guddi gii dem fajar gi ñëw mbokk yi fi ñu toll nii Seydina Muhammad gane na àddina moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci waxtu wi fukki fan ñaar ci Rabiul Awwal tombe woon nag Rabia alaaj bi sa ndooy njool màkk judduwul jamonoy mbóoya judduwul jamonoy sedd judduwul jamonoy tàngaay buñ la laajee Seydina Muhammad kañ la ñëw mi ngi ñëw jamonoy lool li mooy printemps jamono bi climat bi neexee normal ci la Seydina Muhammad ñëw mooy faslu chitaa faslu sayfi faslu xariif ak faslu rabia kon rasulullah yi ganee ne àddina moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naa la bërki dimb nii la Maodo wax nañu la njëkk muy ñëw la xew alaaji ma toppal ñu ko bi ma gën a àddina góor gi toppal nu ko la xew ca gën a àddina ga wax naa la leer ya fa mu jaar Maodo wax nu foo leer ga jaar alaaji Malick wax nu kañ la gën a àddina Xaaji Malik wax nu kañ lañ ko may soxna Maodo naka la màggee Alaaji Malik wax nu euh, bi mu juddoo la xew sa juddu ga Maodo wax nu kañ la raam Alaaji Malik wax nu deux mois ca la raam ñetti weer mu jug taxaw ñeenti weer muy jàpp nu miir ya juróomi weer muy dox juróom benn weer muy dox bi di tàmbalee waaxu juróom ñaari weer mel ni ponkal muy muy dox juróom ñetti weer wax ja mu tàmbalee wax neuf mois Maodo ni wax ja set wicc mu toppal ñu ko bi mu amee ñaari at mu toppal ñu ko bi mu amee juróom-ñaari at bi mu amee juróom-ñetti at première voyage 12 ans la mu toppal nu ko deuxième voyage am 25 ans la kañ la takk soxna 25 ans 2 mois 15 jours ña fekk takk ga Maodo ne xam naa Abu Talib fekk na ko Amr ibn Asad fekk na ko Hamza na ko ku xut ba takk ga Abu Talib may nañ ko Xadijatu ñaata doom la am Alaaji Malik wax nu 39 ans 6 mois lu mu gént bu xëy gis ko 40 ans yàlla yónni njool Makka 49 ans 8 mois 11 jours Abu Talib bi bokk baay mu dee na génn àddina Seydil Haaji Malick ne li ko makka doon nëbbal ci noone ñu tàmbali koo feeñal wa baada sabbin wa tadlilin wa tashihatin axfaw la ma kullama axfawhu min idami muy dem Maodo toppal nu muy dem alhaji Malick wax nu looy dégg ak looy xalaat Maodo wax nu ko ci rasulullah gi cinquante deux ans jëm cinquante trois génn na màkka dem na Médine Alaaji Malick ne bi muy génn màkka ku mu àndal xam naa Aboubacar la àndal lu mu war xam naa gileem la war nu gileem nga tudd Maodo ne xam naa rat baa ula tudd daan na war mbaam ma nga tudd yaafuur daan na war baxla ma tudd dul façon mu njëkk ma nga tudd sak bu bi jaar xam naa jaar na xaaru sawri jaar na ca umu maabat départ na ma dem Médine booy tukki da ngay dabe mbaa ñu dab la mbaa nga dajeel góor gi ne ku mu ci yoon bi xam naa ku mu dajeel xam ku mu xam naa ku ko yoon bi xam naa Haaji Malik ne àgg na Médine altine teeru na njool Makka def na Médine fukki at benn xare na ñaar fukki xar ak juróom ñaar xare yamu perte xam naa xare yamu yamu gañe xam naa xara yamu masinil xam naa mu alaaji Malick xara yamu génn jaaseem dugg ca di xeex ñaata yoon la génn jaaseem xam naa ko neuf la am nañu doole trois ne onze bi nafsihi xad gaza hasi bi la kasibin fi tisi na li ra xami Sidi Haaji Malick ne xara yamu yónnee xam naa yamu yónnee yañ ko xam naa yamu ca gañe xam naa quarante-sept xara yoo xam ne daa yónnee moom njool màkka xam naa ko Haaji Malick nee na ajam nga na mu ajee xam naa ko mu Sidi Haaji Malick taxawaay ba ca Arafa ci Jabul Rahma lam fa discours Maodo e xam naa bi mu dellu see Makkatal Mukarram 63 ans feebar na kañ talaata la ko daaneel àllarba alxames aljuma gaaw biir altine talaata àllarba alxames aljuma gaaw dibir altine une heure mooy la kaar Seydina Mouhamed génn na àddina naka la demee Maodo e xam naa ba mu génnee àddina la mu mujjee wax Maodo e xam naa ña ko sang alaji ma ne xam naa ka doon wëlbati Maodo e xam naa ko waroon sotti ndox te sangul Maodo ne ko waroon sotti ndox ak ka doon ragg ma ne xam naa ka assisté ba ñuy xam naa ñaata nit a ne woon ci biir néeg ba ba ñu koy sang Seydi El Hadji Malick ne xam naa mu Alaaji Malick ka gas bàmmeel ba Alaaji xam naa ka gas ba Maodo ne xam naa ko yoor ci biir bàmmeelam Maodo ne xam naa ña maasale bàmmeel ba Alaaji Malick ne xam naa ka fa mujj di fa sotti ndox naan daa tàng Maodo xam naa ka fa mujj di ñibbi këram di jooy fàtte fa benn dàll ba dàll ba dàll càmmañ la Maodo ne xam naa kan la mu ni doomu ma jala mooy Bilal nday ja daa rafet ba ñu fàtte turam tuddee ko pittax ndax taara wapnul xamaamata xabar yëpp da umin wi jëhati rësi summal xal bu zoo darami Haaj Malick nee na toppal na la ko la jëkk muy ñëw toppal naa la ko bi mu ñëwee toppal naa la ko wax la naa la ko ni mu gënee addina toppal naa la ko ni mu raamee toppal naa la ko ni mu màggee toppal naa la ko fi mu jaar toppal naa la ko toppal naa la ko xara yi mu def toppal naa li mu doon ci ndeyam ak baayam ko toppal naa la ko toppal naa la ko ba ak si midin xara ya mu def ma la koy toppal toppal naa la ko ba mu feebar toppal naa la ko ba ñu denc ko toppal naa la ko ba wax la ko mujj ca bàmmeelam léegi li yee ma desee xam ngeen lu xew nañu àndandoo ñun ñëpp ñaan borom bi subhanahu wa taala at mim lana nuurana wax اغفر جرا imana taqdi hawa ijana yaa waasi arruhami yal na yàlla fayal góor googu moo tax Mouhamed ibnu Abdullah ibnu Wahab yaabaana ajakani ne bi mu fi jógee su julli juróom a ngi koy jooy salaatul wusta ngi koy jooy moom Alaaji Malick Baye Sëriñ Babacar ni jamono dootoo tabi ba indi Alaaji Malick jeex na ma dëhru jaada bi malikin wa ka maliki ka dëhri marra bi malikin lil maliki Alaaji Mansour ni Imam Malick moo doon wiiru doon xabru njol Makka naan ki tëdd fii nee na Imam Malick moomu lañ weccee Alaaji Malick mii rek wa buddi la min malikin malikun bi jam'il fununi allati qad ulim Alhaji Abdul Aziz Dabakh borom bi jaw ba ni ko bàyyi yeete nga gindee nga ba maa ngi nii kenn dofatul charxan wa xarban ulama yaa ngi nii kenn desul yàlla nañ ko yàlla fayal Seydil Hadji Malick mbokk yi félicitation ndokkale leen bu dewee ne yàlla bu kenn manqué ak télévision Futurs média du ñu deñ di leen bégal alxaaji Misaan Ndoy ci kamera bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen kalpe Free Money moo leen doon may seen émission te di leen ñaanal gàmmu jàmm ak salaam. وسل وسلم دائما أبدا على حبيبك